Rimka borom Zawal ñu gën koo xam si Abdou Karim Diouf moom mi nga xam ne moo raw si poids léger yi tey mu bokk si ñi nga xam ne Ahlou Lamb dañ leen a fas yéene décoré tey nga bàyyi ko Zawal lan ngay wax Ahlou Lamb Sénégal ak looy nuyoog askan wi. waaw asalaamaaleykum maa ngi nuyu waa kii sant gars yi yooyu noonu di nuyu gars yëpp di leen delloo ñu ko affaire bi moom lu ma see wax moom xam nga ñun ñëpp ko yëgandoo ñoo ko gisandoo mais xam nga nañ ko gérer rek jeex na ba pare. fii moom dara yàggu fi waaw métti na nag mais loolu moom la dara. mais tey jii nii lan nga mën a wax ban yëg-yëg nga am si axlaam Sénégal war laa décorer tey si bis bi nga jël li ëpp si drapeau yi si li nga xam mooy poids léger ak ñaata drapeau nga ba waa axlaam Sénégal fas yéene laa décorer. waaw di sant yàlla rek di si kontaan tamit xam nga di di leen rafetlu si loolu kontaan naa si torop loolu moom li nga xamante lu ma neex la waaw di sant yàlla waaw. tey jii nii ñaata drapeau nga am boo ko mënoon a wax. waaw ah, bilaay instant bi su ma ko doon calculer nii de xam naa dama koy war a paraan waay. mais xam naa alam Sénégal la bindal xamoo <laughs> nga raw si poids léger ak li bi di gat gàtt ndax man bi ñuy daje Joal le premier décembre ñu ngi dëg malaal décembre Basirou premier décembre bi ñuy daje Joal man ak moom boobu mu ngi si 10 drapeau te boobu saison bi day doog a <laughs> moom le grand champion Krimka 3 2 millions 500 ñu teg fi nga xam mooy terrain gaal yëpp moo ko raafal 10 millions yi keroog booy xool quart de finale la fa wàcc. kon Rimka waxal ak gaañi bàyyil bi xam naa ne wax yomb la waaye une fois nga wax fii laa ko invité nag daa daw ndax bañ am na lu mu war a leeral. non daw ma sax xam nga rek activités yi ñoom ëpp doole xam nga affaire yooyu noonu tout le temps dañuy xaw a ñàkk jot dañuy yenn saa yi làmb ji arrêté na nag mais teewul ñu ngi ñu ngi dóor waar ba léegi. xam nga lu bari loolu mooy tax sax doo leen ma a gis affaire yooyu waaw loolu moom tamit kontaan si rek xam nga di tamit di sant yàlla te muy doon loo xamante ne nekkul ñun yàlla kese la yàlla moo ñuy may di ñaan yàlla mu gën a yokku rek waaw. mais Rimka nga gis say poulain yëpp xaj bi yëpp daw nañ dugg si gaal yi kaa des si doon nañ dégg sax ay rumeur ni kaa dugg na si gaal dañ kaa refoulé wala la. non loolu moom mosul nekk sama xel sax wax dëgg fa ne yàlla mosuma bëgg a dem foofu noonu si gaal maa ngi mooy dem foofu mu doon si loo xam ne si làmb ji lay jóge te maa ngi ñaan yàlla waaw. mais Rimka fan yee am na coow lu rëy lu am mbuur si sa digganteeg si Yaaka Fall donte daw na mais il faut ay leeral ñi ni 15 fois ngeen bëre mu ni daan na la 11 ni 4 nga ko daan ñii ni 7 8 la ñii naan 8 9 la ku nekk daal wax ji boo ñu si mënoon a indi ay leeral loo ñuy wax. non xam nga si Yaaka moom daa nekk koo xamante ne nii moom aw ma dara may wax si moom parce que xam nga nekku fi. waaw mais xam nga loolu moom ay détails la rek loolu loolu man nga xam ne man man maa ko mën a leeral si yàgg set lañ tase nit nag bu la daanee da ngay nangu ne daan na la moom ma daan set ma daan ko cinq affaire bi loolu la mais ñii ñooy wax naan ay quinze ak yooyu loolu lépp amu si. kon daal mën nañu ne moo la jiitaloon daan na la set nga daan ko cinq. cinq waaw moo ma jiitaloon. te bu dawul woon nga def ko nag. ma daw bu dawul woon moom dama koy romb moom te sax daa daw. daa daw de waxam bu rëy boobu daa daw koy. nooy waaw ñu ngi koy waajal nag ñu ngi koy waajal bu baax a baax di ñaan yàlla saison bi di ñëw dàq yi fi jaar yëpp affaire yooyu noonu waaw te tamit li leen rek ngeen tamit ngeen gën see jàpp affaire yooyu waaw. jaajëf bu ñu la invité del del ñëw nag bàyyi daw yi. ah waaw loo am benn problème maa ngi nuyu tamit waa Joal yi maa ngi ziar gars yi yëpp sama gars yi ay ñoom Modou gars noonu ay ñoom Jean di nuyu ñoom sama grand yi ñoom Bas. ay ñoom Talla ay ñoom Dadi ñoom Sarlo gaa yooyu ma maa ngi leen ziare ñoom Badou ñoom Mor affaire yooyu ñëpp sama gaa yooyu yëpp maa ngi leen ziare daal waaw di leen ñaan di leen xamal ne gis naa fi ngeen ma taxaw affaire yooyu noonu